dañoo nekk si ay ay ay jafe-jafe jafe-jafe yu nekk mooy dañoo seetlu ni depuis juróom benn ween wala lu ko ëpp ba léegi étudiants yi ak élèves yi nga xam ne ñoom ñooy jot bourse mënuñoo jot seen bourse loolu nag dañ koy déplorer di ko ñaawlu fépp ba tax na dañoo bindoon benn bataaxal jagleel ko ñi nga xam ne ni ñoom ñooy con ñoom ñooy ñi nga xam ne mooy autorité concernée yi si lycée yi si centre de formation yi jox leen ko ñoom ñëpp te boobu bataaxal ba ñu ko bindee ba léegi doon fii ak depuis lëndi la te depuis lundi ba léegi boo dee xool si euh, Sénégal gépp centre de formation yi ak lycée technique yëpp dañoo nekk en mouvement te loolu nag mouvement boobu ñu nekk nag lenn waralu ko mooy bourse yi nga xam ne dañu koy yeex fay beneen bi dañuy toog lu mat ay juróom benn weer la wala lu ko ëpp ñu ko ñu koy fay te loolu la ñuy dul nangooti ñaar ñaareel ñetteel bi mooy bëgg nañ bourse yi nga xam ne dañu koy fay ñu ñu koy yóbbul si banque yi wala ñu ñu koy defar si moyen de transfert yi nga xam ne moo am si réew mi sans pour autant que étudiant bi nga xam dafa dëkk ba fongale mi wala Koungheul di mën di déplacé wu di jóge ba foofu noonu di ñëw pour mën a jël di boursam te bëgg nañ bourse yi tamit ñu ñu koy fay par weer mais ñu ñu koy bañ a fay euh, par par par par xaaju at ak yu mel noonu loolu dañ ko bëgg moo dakk te dina dakk incha allah bi ndax pare guñu ak grève bi donte démb bañ defee suñu grève ba commencé grève bi gis nañ benn communiqué boo xamante ni si ministère la jugee ne bourse yi commencé ko fay mais taxul tamit duñ bàyyi grève bi dañ koy continuer ndax am na yeneen ak yeneen yoo xam te moo ngi si mooy lu si mel ni suñu jumtukaay yi nga xam ne si la ñuy jàngee yàgg na yàgg goo xamante ni ba léegi changé wuñu ko te toll nañ si jamono joo xamante ni jamonoy jamonoy bataaxal yi dafa gën a xarale toll nañ foo xamante war nañ gën di di def suñuy suñuy di wane suñuy compétence ak nu ko waree mais dañoo bëgg loolu lépp ñu changé ko équipement yi nga xam ne moo nekk suñu salle travaux pratiques yi ñu génne lépp defar si yu bees te ñoo ngi nag adressé lii ministre bi nga xam ne nii mooy yor njàngum enseignement professionnel si lii lycée technique yi ak si centre de formation professionnelle yi di ko wax ni fekk amuñu ndam si li nga xam ne moom la ñuy wut ñun li nga xam ne nii moom lañ jumte commencé nii duñ ko bàyyi benn yoon depuis démb lañ commencé grève bi ba tey ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi ñoo ngi si kawam te grève bi pareeguñ pour bàyyi ko dañ ko bëgg a continuer ba feek ñuy am gain de Euh, pour faire bien de cause yan euh, la waaw grève bi mi ngi concerné lycée technique yi. concerné centre de formation yi professionnels yi mooy ñëpp ñi nga xam ne ni si mbirum professionnalisme lañ nekk loolu la grève bi concerné waaw si biir Sénégal gépp waaw grève bi ñun fekk amuñu gain de cause ci li nga xam ne ni moom la ñuy wut dañuy paralyser système bi système bi nu koy paralyser mooy examen yi duñ ko defati si semestre yi mais aussi tamit ba si examen final yi nga xam ne moom la ñuy jumte moom la ñuy waaj a dem sax duñ ko duñ ko duñ ko def